donc tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo boo xamante ni ça concerne toujours sunu doomi réew yi nga xamante ni dañuy nekk Mauritanie donc mu am quelques vidéos yu jotoon a dugal mu nekkoon ay témoignages yoo xamante ni si dañ ni ñoom lañuy dund Mauritanie dafa metti injustice bi nga xamante ni sii moo fa am dañu jël ko jëmale ko ci lu ëpp ci sénégalais alors tey ñu ci beneen témoignage boo xamante ni cette fois ci nii sunu benn sœur moo koy def koo xamante ni si moom ba léegi nee na moom mi ngi Mauritanie fa lay dund te yàgg na fa. mu am lu bëri loo xamante ni si leeral na ko ci mu doon lu am solo donc appel bi ñuy lancé mooy gouvernement Sénégal ñi nga xamante ni si ñoo war a taxaw sunu doomi réew yi nekk ci biti ñu def effort ci côté boobu noonu pour situation ba nekk Mauritanie ñu man ko régulariser. parce que mënuma concevoir sa doomu réew génn dem liggéeyi te li muy liggéey am na ci loo xam te mu ngi dugg ci biir dëkk bi ba pare ñu koy teg yenn fitne yi ci biti yow jéemoo ci def benn effort te surtout suñu consulat yi parce que même ak histoire bi nga xamante ni moom lañ njëkkoon a dugal fan yëlee ci cas bi nga xamante ni si bu Aminata Gueye la ki doon nekk Liban tam ni ñoom benn sénégalais moo leen fay yóbbu ba pare ñu fay am ay problème mu leen di seetaan même consulat bi nekk foofu aussi tamit deful liggéeyam et c'est ak tamit consulat bi nga xam te ni si moo nekk Mauritanie parce que bu ngeen dégloo témoignage bi bientôt ñoom nee dem nañ ba def ay marche dem ci consulat bi mais ba léegi faalewu leen kon ça veut que ni ñooñu seen bopp lañ fa nekkal nekk lu ñu fa Sénégal et pourtant yeneen réew yi seeni doom ñi ngi suñu biir réew di fi liggéey am fi jàmm te kenn tegu benn métit kenn tegu leen benn coono pourquoi alors ñun ñi accepter suñuy doomu réew di génn dem feneen di leen fay bund xataan di leen naqaral di leen rey kenn du wax alors il est temps gouvernement Sénégal jéem a jóg loolu mu lijjanti ko une bonne fois pour toutes parce que man am na benn Mauritanien également moo envoyé benn audio expliqué mu lu bëri ci situation bi nga xam ni moo fa am te moom pour pourtant doomu Mauritanie la mu xamal ma ni yi bu njëkk daanañ leen ramaat di leen raafal mais bi ci seen gouvernement réew jóge loolu dafa jeex ci seen côté ñoom mais jusqu'à présent sénégalais yi ñu ngi leen koy continuer di leen ko def ak yeneen xeeti mais dañ ci wax que ni li ci ëpp ci sénégalais yi lañ ko jëmale te loolu buñ ko mënee teg doomu sénégalais mu jàll rek ça veut dire que ne ñi nga xam te ne ñoo leen war a xeexal ñi nga xam te ñoo leen war a waxal dañu toog tee seen bopp te loolu du yoon il temps nag gouvernement Sénégal jéem a jóg le problème boobu noonu waxuñu dong ci Mauritanie de mais bépp réew boo xam ne doomu Sénégal ma nga di dund ci ay conditions yu métti ñu def le tout ba régulariser seeni situation parce que ñoom aussi tamit ci réew mi lañ bokk bu élection jotee dañuy voté nit ñëpp donc président bi nga xamante ne si moo fi toog li ko fal aussi ñoom ci lañu bokk donc il est mu mën leen a gertu mën leen a jox seen gëdd alors pour bañ a guddal ñu ngi leen bàyyi ngeen déglu waxtaan bi nga xamante ne si moom lañ jot a am ak moom ñu jaare fa tëjaale vidéo bi di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah. sëñ bi noo def ça va comment tu yaa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah macha allah man dama leen di suivre sur YouTube te yi dama gis ngeen di wax si problème mu Mauritanie ak sénégalais yi naar yi ak sénégalais yi ni ñuy dundee. ndax mën naa la si indil ay leeral s'il vous plaît. ça si ci loo nekk yaa ngi ci jàmm ah ñu ngi jégalu ci yéex a tontu bi de ñu ngi jégalu bu baax dañ xawoon a xat waa d'accord allez-y loolu lañ gën a soxla sax ay leeral pour comme ça nit ñi mën a xam exactement mbir yi nan la demee. c'est pas man dama bëggoon rek indi ay leeral ci seen d'après seen audio bi ma mujjee déglu waa ji ne Mauritanien la ne day indi ay leeral kooku. moom daa waxul dëgg parce que ñun fii li ñuy dund fii nii ñun sénégalais yi wallahi azim métti na métti goo xamante ni nit mënul toog sax <clears throat> di ko expliquer lépp ndax déjà benn de un séjour moo amatul séjour ci boppam amatul ñoom li ñu bëgg mooy chaque trois mois yow nga génn dem Rosso dem dagg devise ñëwaat imagine chaque trois mois yow xaalis bi ngay dépensé trois mille ouguiya aller 3000 ouvriers retour ça fait 6000 ouvriers 6000 ouvriers ça fait 10 000 bokkul ak li ngay daggee devise chaque trois mois nga génn nga dem def loolu la ñuy bëggaat te loolu dafa metti dafa metti Sénégalais yi li ñuy dund fii dafa metti ñi naan ramasse bi nii boo toogee foo war a toog wala nga yem fa nga war a yem kenn du la ramasse loolu c'est pas vrai quatre jours avant quatre jours mais y même pas quatre jours Basra xam nga luñ fa def dañu def civil yóbbuwuñ seen oto bi ñuy ramassé de bus bu weex lañu dem gaare xam nga lool nit ñi duñ leen ko foogee nit ñi nekk ci biir resto yi ci biir boutique yi di jënd sax dañ leen doon luqati ci biir boutique yeeg resto yeeg tàngana yi di leen luqati di leen ramasse ay policiers yu góor ak yu jigéen lii man maa la ko wax maa ci am lu ma leer man yàgg naa Mauritanie fii def naa fi cinq ans def naa ko fi bu séjour amoon nit ñi dinañ dem ñi dagg ji séjour man temps wu séjour man dama daggoon séjour dagg naa sama séjour ba séjour bi am un an kenn musuma ne am sa carte jour bi séjour bi jeexee ca lendemain ba ci lañ ma ramaas dama mujje woo sama patron moom ma ñëw jël si mais léegi séjour amatul amatul te li ñuy def ni c'est pas normal dañu lekk xaalis nit ñi dong buñ la ramaasee nga dem. buñ la patam patamee yow bëgg nga génn delluwaat ci say activité ñi laaj la ay trente mille wala ñi laaj la leneen nga génne joxe ko dem euh, loolu buñ la ko laajee nga joxe ko mën ngaa toogaat ginnaaw suba ñi ramasala te mënoo di dëkk ci li ngay liggéey rek nga di ko joxe loolu c'est normal fii naari dañu soxor dañuy raciste wallahi azim kooku li mu wax du dëgg du benn dëgg fii Sénégal yi liñ fiy dund ñoom dong ko fiy dund amul beneen étranger bu bu ko fi dund amul dañu een sénégalais yi bëgguñ sénégalais yi te pourtant ñun ñi ngi yaatal ci sunu réew ñi fa di def seeni activité di liggéey seen liggéey normal ñun bundu xataaluñ leen déranger wuñ leen ci lenn au contraire dañ leen mettre à l'aise ci sunu biir dëkk lu tax ñoom ñu def la même parce que bëgguñu sénégalais yi loolu nag président moo ci war a wax ndox ci ay jéego mu yónni fi sax ndaw au moins sunu ambassade bi jëriñuñu dara dara jëriñu ko ramage ba mu taree tar tar tar bu fa ba fa nit ñi demee mars takk seeni bandoor rouge faalewu leen faale la leen deful dafa metti nañ ko waxta dee dafa metti d'accord soxna si dégg nañ bu baax li nga wax te ñu ngi lay jaajëfal ci participation bu am solo bii nga def mais man question bi ma bëggoon xam mooy lu tax ak métti di ngeen fay dund yooyu yëpp boobu ba léegi yéen nangu leen ngeen dellu si Sénégal ngeen bëgg a toog foofu rek lan moo waral ngeen bëgg a toog foofu ak métti yi nga koy dund yëpp parce que man histoire buy nii bon bi ma ko dalee dégg yàgg na trop ñu naan Sénégalais la ñuy dund Mauritanie dafa métti donte nag oo ma ci woon yenn information yu bëri yi ma ci jot nii nii mais franchement ak li ngeen ma expliqué nii te yow dong bëri na ñoo xamante ni si même chose lañ ma wax mais man li ma bëgg a comprendre mooy pourquoi yéen. ngeen continuer di toog ci loolu bëgg a dund foofu lan moo tax nangu leen a dellu si Sénégal. du bañ a dellu si Sénégal de dafa nekk ne li ñuy gañe fii moo tane li ñu doon gañe Sénégal xam nga kenn ku ci nekk si àdduna dangay ñaan yàlla sooy dund sa dund di avancer. xam nga ñun Sénégal man mii di wax yow Sénégal laa nekkoon di liggéey waaye bu ma duggee fii li mu fi mën a gañe mënuma ko woon a gañe Sénégal xam nga dafa tanewante loolu moo tax ñun lu ñu gënal mooy ñu toog suñu dëkk toog foofu liggéey fa ñafe fa lépp lu ñuy def ñu defee ko suñu dëkk mais jamono moo métti métti goo xamante ni moo tax nit ñi léegi ñuy génn di xooli fu tane te wax dëgg yàlla li ñuy gañe fii moo tane foofu li ñu doon gañe Sénégal loolu doomu la du leneen loolu kese moo tax ñu toog fi du bay suñu waar mais nekkul ne dañoo bëgg a toog di dund métit gi wala leneen déedéet dañoo gis lu tane parce que liggéey bi fii la tane loolu kese la di wax loolu naan lu tax sénégalais yi mënuñoo ñibbisi lu tax sénégalais yi mënuñoo génn seen réew moomu ñi bàyyi leen ko ñi ñëw mais ñoom ñi ngi nii ñoom ñi ngi sunu réew ñoom ñi ngi sunu réew te ñoom amuñu fa benn jafe-jafe-jafe te pourtant ñoom ña ngi fay liggéey kenn ko nekk dangaa xool fi nga xamante ni sa côté évolution fa la nekk rek nga dem fa loolu kese la yàlla fu mu tudd sa wërsëg ala kulli aal foofu ngay dem loolu kese la te fii mun ak lu mu mënti mel yàlla def na fa suñu wërsëg looloo tax rek ñu fi toog di bay suñu waar loolu kese la ñun ñoo ci tane gaa ñun jigéen ñi ñoo ci tane ñun ñuy liggéey ci kër naar parfois nga gis sa naar bu baax boo xamante ni du parfois sax mais dangay daje sa naar bu baax boo xamante ni moom buñ la ramasser tamit moom moo lay garanti danaa la man maa la garanti buñ la ramasser woo ma téléphone buñ la ramasser nga woo ko moom mu ñëw jël si la moom moo lay ñëw jël si xam nga parce que kooku du bëgg tamit moom tamit liggéeyam mu tardé. bu ñu la ramassé rek da nga woo moom mu ñëw jël la mais loolu tamit dafa métti chaque jour ñi lay pamte pamte ci oto yi di la ramasse di la delloo di la ramasse di la delloo di n'importe quoi man góor ñi laa si gën a téye yërëm góor ñi liñ leen di def di leen maltraité comme ku yor seen ay xar laa lay wax nii non ñii dañoo bon wallahi dañoo bon dañoo bon loolu kese moo ñu fi sëriñ bi mais du leneen du bañ a ñibbi si suñu dëkk déedéet. du bañ ñibbis suñu dëkk ndax ñun bu dara xewee dañuy waaj ñëw si xew bi bu paasee ñu dellu si waat ñëw dugg si li continuer suñu liggéey. d'accord soxna si dégg nañ bu baax li nga wax d'une part aussi tamit d'accord nañ ci ak yow xëy na li ngeen di am foofu moom moo gën li ngeen doon am fii mais comme bu ngeen ko amee ba pare mu delluwaat ci ñoom ndax remanche bu ñu leen remanche bëgg leen laaj xaalis trois mois yu ne ñun bëgg leen a delloo ba ci frontière bi ngeen daggaat pour duggaat ci dëkk bi. daanaka méthode yooyu yëpp boo ko dajalee boo ñëwoon toog fii xëy na mooy gën donc côté boobu laa xalaate moo tax mu posé leen loolu noonu léegi bi ci des mooy hmm, dama am ñoo xamante ni si ni dañ ni dafa mel ni ramasse bi ñuy def foofu noonu gouvernement bi ne foofu noonu yëppuñu ko loolu tamit aussi bëggoon naa ci am ay leeral parce que ñoom nee nañ il paraît que policiers yi des fois dañuy làqatu pour di ko def. non waaw li nga wax dëgg la mais ñun instant bii li wax nga dëgg li ñuy liggéey yëpp ñoom dañ koy jëlaat si ñun chaque trois mois yi génn mais loolu tamit dama defe ne suñu taxawaayu gouvernement moo fi manqué xëy na bu fi manqué bu fi bu fi amoon nu mu fa war a amee konoon tey loolu yëpp duñ ko dund kon li ñuy liggéey dinañ si am avancement ba ñëw ñibbisi suñu dëkk investir foofu liggéey suñu liggéey ba nga xamante ni sax dootuñu liggéeyal benn naar sunu ambassadeur baa ngi nii tey balaa sa a jeex nga am problème nga sol sa dàll nga ne danga fay dem di ñaxtu doo ko sax gis du la faale du la lijjanti jëriñu ñu fi dara fii la takk ay bandeau rouge ne nañu abal na dema dema dem nañu abal soxla ko parce que lijjanti wuñu nga boobu mooy benn ñaar dafa naa ne Macky tey bu soloon dàllam wala tey jii mu mi yónnee ndaw mu ñëw fii mu toog mu wax ak gouvernement mauritanien bi ah tey lii ñuy dund fii nii nii mën na deñ mais daf ñu seetaan te varié ngi nii ba mu ñëwee dañoo jël suñuy carte taxawu falaat ko ci boppu réew mi te mu ngi nii faale wuñu lijjanti wuñu daf ñu war a lijjanti boobu mooy ñaar tey jii ñun li ñuy toroxal nii nii nii li ñuy def fii yëpp yëpp yëpp sañuñ koo def beneen étranger bu dul sénégalais sañuñ ko du gambien bi du malien bi yaa ngi may dégg du ivoirien bi du marocain bi li ñuy def fii sénégalais yi kese lañ ko fiy def parce que sunu ambassadeur bii moo ñu njëkk ñàkkal fayda fulaaluñu ñaareel sunu njiitu réew moom tamit waxul lu jëm si ñun loolu moo tax na li ñuy def duñ koy ñu koy def ndax nee nañ kat nam la gis gisee rek la lay awalee bu fekkoon ne sunu ambassadeur bi tey jii daf ñu fulaal wala suñu président bi di dox ay jéego yoo xamante ni doomi réewam mi dañuy am fi jàmm fi ñuy liggéeyee dox si benn jéego lu mu ndaw ndaw kon li ñuy def nii duñ ñu ko def te man mënuma gëm benn yoon ne lii nii gouvernement bi yëgu ko parce que lii ñun ñu ngi koy ñaxtu de gauche à droite ñu ngi koy ñaxtu de gauche à droite bu njëkk ba nag moom dañu fi doon ramasse di fi ramasse déggoon naa temps yooyu ñu ne gouvernement bi yëg ko woon mais dañoo xëy xëy ñi aaye leen ne leen nañ arrêté ramasse bi ndax séjour amul ba pare ñuy continuer di ramasse di laaj nit ñi xaalis buñ la ramassé laaj la vingt mille wala trente mille wala ñu laaj la dix nga génnee joxe ko ñu bàyyi la nga dem yaa ngi dégg te temps yooyu mool yi lañ ci gën a sonal mool yi liñ leen doon wan ak mason yii di leen ramasse di leen. non c'est di n'importe quoi ku ko ku ci tegul sa bër rek munoo koo sax expliquer munoo ko sax expliquer laa lay wax nii loolu dafa ñaaw loolu kenn mënuñu ci dimbali ko dul sunu président loolu kese moom kese moo moo ko mën a dox lii jeex fi parce que fii seeni doom a ngi ci sunu réew di liggéey seeni doom nu ñu amee droit dugg suñu réew dafa liggéey ñun tamit noonu lañu amee droit dugg fii nii di fa liggéey bu fekkente ne kay loolu mënatul nekk kay na seeni doom ñoom dellu si fii nii ñun ñu tëj ñu tëj frontière bi kenn dootul dugg kenn dootul génn fekk si kenn mu jeex tàkk mais dafa metti dafa metti neexul si xol wallaahi gis nga ñëpp sénégalais yëpp bu ñu mànkoo woon génn ñoom ñu torox fii li ñuy liggéey lépp sénégal moo leen ko sénégalais moo leen koy liggéeyal ndax ñoom ci seen bopp nanguwuñ tàng ñu liggéey amul kër booy dugg nga gis jigéen mu yëkkati kudd lépp ñun sénégalais yee ko fiy liggéey bu fi sénégalais yi génnoon tey jii ñoom ñi torox dafa nekk ni rek wallahi am dafa yemut ak ñàkk mais bu am yemoon ak ñàkk billaahi dañuy mànkoo génn seen réew mi génnal leen ko ñoom ñooy toog yuuxu di ñu woowaat waaye nekkul ñun ñoo leen di soxla mais dafa nekk ne nag rekk am moo yemul ak ñàkk loolu kese la kenn ku nekk yaa ngi daw di wuti di góor góorlu di daan sa doole di def ci sa njaboot jamono moo metti moo tax kenn ku nekk yaa ngi kër kër yi di góor góorlu làqatu googu moo may jaaxal parce que làqatu goo xam ne yow booy làqatu fooy làqatu yow duggoo ci suuf ron lal yow da ngay teg sa tali ci kaw oto bi ci ci kaw goudron bi di daw di ramasse ay nit autorité yi mën nañu croisanté ak yow ñi nga xam ne dañuy liggéey ci euh, ci ci ci gouvernement bi loolu ñu ne làqatu man mënuma gëm benn yoon na làqatu xam nga lan lañ xam ñoom liggéey bu salte xam nga kiy fekk feu rouge tàkk nga burle ko dem sa yoon kooku xam nga ne salte ci yow la commencé ci yow la yem àq ak yelleef xamuñu ko xamuñu àq ak yelleef man mënuma gëm benn yoon ne gouvernement bi yëgul loolu mënuma ko gëm parce que lii dafa siiw nit ñi fu ñu toog ñu ngi koy ñaxtu autorité yi lii jot nañ ci mënul lii autorité yi jot nañ ci kon gouvernement bi mënu ko ñàkk yëg te ñoom utin wu salte lañu xam lekk ñaqu jàmbur xaalis bu lew waxuñu ci dara moo tax ñi ñuy def liñ ñuy def di jël suñu xaalis ci zéro ci loo xamante ni teguñu ko fenn ñun séjour bu amoon gis nga temps yi séjour ba séjour amee billaahi ran gi day gudd gudd gudd ñëpp ñun ñëpp dañuy dem ñi jël kenn ku nekk nga jël sa trente mille nga dem dagg sa carte séjour pour un an trente mille yi mu ngi nekk cinquante mille CFA mais dangay ngay sacrifié wu jël sa trente mille man mii di wax ak yow dagg naa ko sama carte séjour ba ma ko daggee kenn mësuma ko laaj kenn mësuma wax ak sa carte. te temps yooyu ramas bi dafa tar bay bëgg a dee gis nga sama carte seize bi dafa jeex tey ca lendemain bi lañ ma ramas bañ ma ramasee ma woor sama patron sama patron yebal benn sous-officier mu ñëw jël si ma bu ma jël see ca suba sawaar may xëyaat di dem di nduggi ji oto ramas bi jaar samay tànk bëgg ma ramas jour boobu dama daw ba dugg ci benn siège siège bi deuxième étage la dama yéeg ba ci deuxième étage bi yëg naa ba dugg salle de réunion te xam ne moom xaw ma man fi ma dugg nii salle ñoo la ñëpp dañoo teg ku ci yoroon bic da ko teg jàkkaarloog man dama xool ne ma xaay chinu la ma ne leen oto ramas moo ma dàqee mu ngi ci bunt bi ñu ne ma taxawal fi ba dem fii kenn sañu fi dugg di la ramas ndax ñoom dañuy tere loolu boo dàqee nit bu mu dugg fenn doo ko ram doo ko fa fekk di ko luqati di ko ramas ñoom loolu dañ koy tere léegi. <clears throat> man ci laa ci laa xaar ba ñu lii après man ma génnaat dem ci laa ne nag lii nag moom instant bi métti na métti goo xamante ni mooy loolu te man boobu liggéey wàcc laa doon def dama doon wàcc chaque quatre heures dama doon wàcc di ñibbi Basara Basara cinquième fi nga xam ne sénégalais yi fa lañu dëkkee nag moom ak sixième foofu lañ gën a yab xam nga foofu amul ay naar naari xees yi dëkkuñu fa ñu ngi ne kese fa dëkk foofu moom guddi ga lu leen neex la ñuy def ak ay ngoon lu leen neex la def ñëw ramaas foofu moom mën nañ fa dugg moom te autorité yi duñ leen gis li bokk ci gouvernement bi duñ leen gis ndax foofu amul ay naar yu xees foofu ñun sénégalais yi ñoo fa ëpp saraxule yeeg soninke yi ñooñu ñoo fa nekk waaw mooy fi ma la doon wax ne laan fa lañ ñëw gaara seen bis bu weex di ramaas di dugg ci biir reste yi xam nga ne loolu buñ ko def biir tavrax zëy na fi naar yi dëkk duñ ko fa def ndax buñ la dàqee ba nga dugg ci boutique sax sañuñ la faa fekk di la ramaas waxuma la ñi lay fekk ci biir kër di la luqati sañuñu ko mooy loolu gis nga lépp kenn mënu ko sax expliquer wallaay lépp kenn mënu ko expliquer. d'accord soxna si dégg nañ bu baax a baax li nga wax te di la jaajëfal encore une fois ci participation bi am solo bi nga def ak leeral yu bari yi nga xam te ne indi nga ko ci merci beaucoup.